képp koo xam ne képp koo xam ne bëgg nga lu baax bëgg nga jàmm tey ak ëllëg toppal baay toppal baay ndax baay mooy koo xam ne soo ko xoolee jëriñu su waxee nga jëriñu su defee kët nga jëriñu kon kon bàyyi rek doy nañu yal nañu yàlla may bàyyi yal nañu yàlla may bàyyi yal nañu yàlla may bàyyi yaa rabbi mi ngi ñuy gërëm mi ngi ñuy sant nu bëgguñu ko dul baay xamuñu ko dul baay ko dul fay alfu salaati la fay maa salaami la fay ala alxabibi la